xoolal lii fan la tey si suba fan actif dama del dox da ngay laaj. ak bagage yu bëri. ak bagage yu bëri. jaajëf waay. notre camarade Guy et notre camarade Assane. ñu naan la Assane. camarade. salaamaaleykum. Comment ça va Alhamdulillah. On se bat. jox ma ma affaire bi mun nga ma jël benn photo ak Asa jërëjëf waay. non. waxal tooñkat yi ñu bàyyi tooñ. waaw waaw ñu bàyyi tooñ rek. encore tooñ jeexul xeer. Hubert il est toujours aussi fort. bilaay.

merci gan bi yow léeg ñu jël sa bagaay sax ne nekk ni di photo ah, ah, ah, ah gan bi <laughs> ñu jël sa bagaay sax Voilà la sortie de Guy et Hassan Diouf. Ils retrouvent leur famille. Voilà, c'est ça. mais njàmbaar bu milliard. waaw waaw seen doom kenn du ko am na ñoo xam ne bu ñu fekkee jamono ñoom la. waaw waaw doon buur. ku ko fekkee te tey si njàmbaar si soo ko fekkee woon ak jàmm ngay doon. li fi nekkoon jugu fi bañ doon xeexe ñu ngi fay xeexe ña doon gañ yi gañ mais ni xam ne bu ngeen nekk. Mhm. Sénégal ñëpp ñu ngi seen ginnaaw. ñenn ñi ko ñu wax ñenn seen biir kër lañ toog di foofu mais xool yëpp yéen a hmm. li ngeen nekk neexul mais njàmbaar neexul moom jàmm yàlla ko def gàtt na toolu tey ku bànneex ñoom doo fi am jàmm mais da ngeen xam ne àdduna yëpp seen ginnaaw ñu gën a góorgóorlu yàlla yàlla suturaat ci seen ci jàmm. amiin waaw jaajëf waay jàmbaar jaajëf. waaw. Guy, le calendrier de Guy et Hassan. Allez. Aujourd'hui. Mais nous n'allons, il n'y

Voilà, on sera obligé de couper le live parce que on, on va prendre le départ pour Dakar. Donc euh, à tout de suite, le combat continue.